et ko daal di faram-fàcceeg suñuy euh, gan donc monsieur Fofana sept jours de campagne euh, yi nga xam ne jot nañu ko gisagum euh, dimanche passé la ñu tàmbali woon boo doon def benn bilan su fekkee nun laa ko mën a tuddee ban façon bilan lay doon ci sept jours de campagne yi. bon lu may njëkk wax campagne bi démarré nañ ko. Hmm. effectivement sur toute l'étendue du territoire national am na ñaari scène de violence yu ñu gis. à Dakar et à Koungheul mais warul tax tamit nag ñu jàpp ni fépp am violence parce que des fois dañuy am cette perception jël benn affaire rek rëyal ko jàpp ni fépp la donc y a 47 départements xaw ma 48 départements 46 départements dégguñu feneen scène de violence lu dul lu am Dakar ak li am Koungheul donc nag mu doon looy njëkk a constaté beneen bi man c'est le traitement des médias lay xool il y quarante et une en compétition tey rek ba may ñëw génn sama bopp koñ dama yem ci coalition jëf jël bu Talla la nga xam ne Maguette Wade mii nga xam ne mooy le maire de Mékhé moo jiite coalition boobu Talla Sylla nekk troisième sur la liste ñu nekk sama koñ di def proximité ñëw di wax ak di ñii et tout dans le calme dans le truc après j'étais en train de me mais c'est vrai suñ boo xoolee le traitement des médias surtout les médias privés les web TV de façon générale la press écrite tu as l'impression que cette élection se joue entre quatre coalitions parce que ñoom rek ngeen di jox place pour wax et plateau bi wane na ko da ngeen indi ñaari Pastef benn analyste peut-être keneen bu ñëwoon mais peut-être que fu mu amee ñaari mu mënoon na am benn Pastef ak keneen ku bokk beneen coalition donc c'est dire que quelque part les médias doivent faire un effort may ñeneen ñi fu ñu waxee parce que ça participe à l'expression de la démocratie loolu tam beneen constat la booy gis boo ko yemalee nag ci quatre coalitions yooyu nga xam ne ñoo ëpp lu ñu leen di tudd ci médias yi malheureusement da ngay constater ni on n'est pas dans des proposition on est dans du wax tontu dans des pics et des répliques. dàggasante quoi dàggasante loolu ngay constater. da ngay constater ni y' a que des attaques et des contre-attaques des pics et des répliques des dagg santé des wax tontu et que malheureusement ça ne participe pas à permettre aux voir et de comprendre lan la ñu war a euh, fan la kan la war a sànni seen xob ak lu tax ñu war ko sànni seen xob. Mm-hmm. parce que pour man dama ko doon wax avant te dama ko gisaat fii dama yàgg wax naan attention à ne pas se tromper d'élection parce que les gens. ñi nekk ci opposition bi attention à ce que élection présidentielle bi ngeen xam ne da ngeen yaakaaroon deuxième tour amoo leen ko ngeen bugg ko dabee ci élection législative yi parce que le rôle d'un député est différent du rôle d'un président de la République lan mooy député. lu ñuy mm-hmm. xaar ci député. lan mooy taxawaayu député loolu nga war a wax sénégalais yi boo leen waxee loolu ba pare après ngay leen yow boo demee lan mooy doon sa taxawaay man damaa jàpp ni campagne bi war a tourner. c'est quoi un député quelle la mission du député mm -hmm. quels sont les pouvoirs d'un député et après yow nga ne yow boo demee en tant que député lan ngay def nan nga fa bëgg teewalee askan wi mais loo si gis dëkk bi doxul kii lii kii leneen keneen leneen kii wax la lii kii wax la lële kii naan la amoo bac kii naan la mandikat nga kii naan la lële c'est vrai mooy xorom si campagne bi dëgg la mais dafa mel ni xorom si dafa ëpp parce que j'entends pas beaucoup de propositions moo tax quelque part je me dis peut-être que aussi c'est la première semaine de campagne le temps que nit ñi euh, gën a num ti gën a avancé peut-être on arrivera à des propositions thématiques comme par exemple ñu ne tey aujourd'hui sur la réforme de l'administration bu boobaa kii mu ne yan loi la ñu war a def pour ñu réformer administration kii mu ne lañ tu vois wala ñu ne la réforme de nos finances publiques parle de déficit budgétaire mm. on parle de chiffres mm. lan moo war a nekk taxawaayu député yi ku nekk wax si et cetera donc man débat bi foofu laa koy xaar mais malheureusement gisaguma ko foofu. donc ñoom am nañu matière mais dañ ko fi romb. dañ non am nañu matière bu ñu sur la distraction après yéen tam médias yi ngeen jàppale leen si distraction boobu noonu parce que loolu rek moo leen si intéressé parce que tey jii nii quand les médias vous parlent on vous diw attaque diw diw attaque diw après xam nga c'est vrai que nag peut-être le modèle économique des médias aussi tu tu as de on peut comprendre ça donc raison pour laquelle peut ce model la façon de sorte que loolu rek la ñuy bëgg a mettre en avant parce que aspect commercial boobu noonu moo ci nekk mais malheureusement. Mm -hmm. il y a beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses à faire et à dire et j'espère qu'on y arrivera. Mm-hmm. Mm-hmm. dinañ ci ñëw euh, xëy na danañ àgg ci étape boobu ngay wax donc euh, Samuel yow itam ban euh, bilan ngay def ci sept jours de campagne yi. waaw sept jour de campagne yi en tout cas ñun moom ci suñu ci suñu suñu parti Pastef satisfaction totale lañ ci am parce que gis nañ. Euh, li nga xamante ni moom la président Ousmane modèle du président Ousmane Sonko di campagner mooy dafay def pôle ci pôle bi fu ci nekk mu taxaw fa génn spécificité li nga xam ne mooy pôle bi développé ko kon donc gis nañ ba mu demee Kaffrine développé na fa ci mbay mi ba mu demee Kaolack aussi la même chose ci autoroute de l'eau donc ñun ñu ngi campagne avec des thématiques fortes mais malheureusement nag day Ousmane Sonko day développé cinquante deux minutes mais deux minutes mooy nekk comme li ko sama grand Bachir waxee. média yëpp jël deux minutes di pic yi relayé ko. donc mais. y' a du y' am na forme am na fond boo xamante ni tey jii président ko mu ngi koy dégager ci campagne bi. Mhm. mu nekk lu ama ama am solo. Euh, démb rek gis nañ ko ci Casamance li mu fa développé yëpp ci li nga xamante ni pôle mu ne danañ fa defaat beneen port boo xamante ni port industriel lay doon pour li nga xamante ni capter économie des des des des des pays environnants nga xamante ni tey jii port boobu dana mën a fexe ba relier li nga xamante ni mooy Dakar ak Ziguinchor ak les les pays environnants comme ay Guinée ay Gambie affaire yooyu noonu pour que l' gën a mën a euh, am attractivité pour que exode rural bi ñu di xeex pour mu mën a mu mën a nit ñi mën a des foofu noonu am fa am fa seen teranga tey jii ñu li ñuy woote mooy euh, souverainité économique mooy euh, économie endogène donc loolu nag munul am tànk defoo pôle yooyu noonu nga xamante ni da ngay fekk nit ñi fañ nekk nga teg leen fa proposer leen loo xamante ni danañ ci mën a am seen sutura danañ ci mën a am seen teranga te mu nekk des des des des des des des euh, des financements yoo xamante ni c'est endogène ci réew mi lañ koy joxee dellawaat ko ci réew mi pour que ñëw réew mi mun a gis seen bopp ci li nga xamante nii mooy mooy réew mi donc ñun suñu suñu suñu campagne ñu ngi koy mener à bien campagne boo euh, euh, caravane boo dem gars yi ñu ngi génnee li nga xamante ni euh, mooy suñu suñu suñu suñu vision cinquante bi nga xamante ni tey jii moom lañ def comme propos force de proposition donc ñu ngi koy ñu ngi koy expliquer sénégalais yi ngi xam par lan lañ ko nan lañ ko nan lañ ko nan lañ ko euh, euh, sendee nan lañ ko defaree fii ak 2029 fii ak 2034 ak fii ak deux mille cinquante te loolu yëpp mu ngi ci te ñu ngi nekk di ko expliquer sénégalais yi benn par benn ñu ngi def ay porte à porte di expliquer sénégalais yi benn par benn li nga xamante ni mooy suñu euh, euh, thème de campagne li nga xamante ni fa lañ bëgg a yóbbu aussi Sénégal fi nga xam fi nga xam ne fa lañ bëgg a yóbbu aussi Sénégal. Hmm. donc jàppoon aussi euh, yaa ngi koy wax ne Ousmane Sonko dana def discours cinquante deux minutes wax lu am solo mais benn pic ndaw lay lancé. Euh, gaa ñi di ci wax jàppoon ni moom moo ko ci jublu aussi. Mm, exactement pour xaw a. exactement yëngal seen politique. Ousmane Sonko Ousmane Sonko c'est un communicant. gis nga munoo toog 30 minutes di wax. nit ñi concentré wu ci li ngay wax da ngay dem à un moment donné il faut il faut décompresser il faut que nga nga xamante ni mooy ambiance bi moo tax muy dugal prix yooyu pour que gars yi mën a reetaanaat après ñu mu continuer waat ci li nga xamante ni mooy programme bi. mais bu dee Ousmane Sonko bon communicant. mais un bon communicant moom bu fekkee ne xam na ni bu bu defee benn pic bu ko lancé gars yi mm. fàtte li mu doon wax yëpp est-ce que du laaj des fois tam mu concentré wu am bañ a gars yi dañ ko fàtte xam nga lu tax boo gisee mu ne ñeneen eh, ñi ceinture leen ci réseaux sociaux ci ci ci ci campagne bi c'est parce que Pastef dafa am li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy maîtrise ci réseaux sociaux yi kuñ muur nga nëbbatu kuñ feeñal nga feeñ loolu dañ koy jëlaat di ko tas li nga xamante ni mooy mankab day jëlaat li nga xamante ni mooy propos Ousmane ko yi di ko tagg di koy di ñu koy dagg di ko def ci ay séquence di ko bind di ko def ci ay thématique di ko envoyé waat nit ñi di ko tasaare di ko dugal ci réseaux sociaux yi di ko dugal ci suñu groupe WhatsApp yi di ko partagé ñun patriotes yi lépp lu Ousmane ko wax midi ba vingt ñun xam nañ ko sénégalais yi nga xamante ni ñooy les sympathisants ak sénégalais yi nga xam ne ñor na leen ñoom xam nañ ko mais ñi nga xamante ni dañoo contre nag ñoom li ñaaw rek la xaar ak li nga xamante ni peut-être le train qui n'arrive pas à loolu la ñuy xaar pour mën a pour mën a dénigrer et loolu c'est le c'est leur rôle mais Ousmane Sonko campagne bi mu def nii mosul am Sénégal man maa la wax lii tey euh, mosul am Sénégal campagne boo xamante ni euh, euh, dañ ko teg ci thématique campagne boo ko teg ci ay pôle toog expliquer nit ñi lan mooy programme bi expliquer nit ñi fan lañ bëgg a dem a génn man de c'est la première fois ma ma ma gis ko. te moom mooy indi mooy indi innovation boobu noonu. kon donc nañ ne jaaraama Ousmane ko hmm. jaaraama la Pastef. danañ ci gën a xuus ak euh, seen façon bi ñuy communiquer euh, parce que. mais boo ma baalee tuuti. grand hmm. ci communication. Hmm. dañ la naan yow mii di communiquer yaa am sa objectif. yow yaa xam lan mooy sa message. lan mooy sa cible. ñan ngay waxal. kon lépp lu xam ne lii ça peut distraire ta communication yow yaa ko war a moytandiku kon si côté boobu noonu laa jàpp ni man par rapport à li nga wax noonu man maa doon Ousmane Sonko du ma may buntu fu keneen di ma tontoo damay wax ak ñu ma war a waxal wax leen li ma leen war a wax pour convaincre leen ñu ko gannaaw loolu mënta ne. Ousmane non wax doomu pendandaar la. non du non wax nit ñi tontu ko. non c'est non c'est ça xam nga xam nga ça dépend. ça dépend xam nga dinañ ko tontu te peut-être que dañ ko waroon tontu ci idée te kenn du ko tontu ci idée malheureusement parce que si lan lañ koy tontu ci loo xam ne xëy na ça devient accessoire on lu on lui répond pas dans le principal. foofu laay waxee naan tey jii yow mii di communiquer yow yaa am objectif éviter tout ce qui peut parasiter ta communication parce que yow mii toog fi jàkkaarloog man tey am na noo xam ne boo ko waxee. da ngay com da ngay parasiter yow lu la fi indi message boo bëgg jàllale doo ko mën jàllale wala sa message bi duñ ko buñ bu jàll wi tamit les gens vont retenir l'accessoire du message comme par exemple bu ñu fi xuloo woon maak yow. Hmm. peut-être que on va oublier tout ce que tu as développé pour ne retenir que lu xuloo boobu. dëgg la da ngay euh, am public boo xam ne moom dafa dafa comprendre. Ousmane Sonko dafa comprendre public dafa comprendre ay partisans dafa comprendre ay sympathisants xam na bu mu leen war a boosté xam na fu mu leen war a ne déglu leen lépp xam na ko te ñooñu dañ dañ koy dañ koy topp lu mu wax loolu la ñuy def kon donc du coup euh, il est en de bien pour man si sama gis-gis ni àdduna nag euh, on est dans un pays euh, démocratique. j'ai pas dit qu'il ne fait pas une bonne chose. j'ai dit qu'il peut améliorer man améliorer laa wax. néew ma lu mu def baaxul de. Hmm. j'ai dit il peut améliorer. la moo tax man la yow suggestion yi ngay def. da hmm. koy def. ñàkkul mu ngi lay seetaan wala pôle communication ñu ngi lay seetaan pour que ñu mën a indi ay euh, euh, euh, rectification ci suggestion yooyu ngay def moom laay wax à chaque fois opposition bi mën na leen lii du bible du alxuraan c'est pas exempt de reproche nañ dem jëli ko uti ko liir ko xool lan moo ciy faay ak lan lañ ci war a defaraat ñu toog ñu débattre ci man loolu laa d'accord parce que l'argument des idées mm-hmm. man loolu laa gëm te loolu laay d'accord mais malheureusement fii dañ lay indi ci yeneen détails yoo xam fait divers quoi lañu lay yóbbu fait divers fait divers fait divers mais ah. l'essentiel est la le Sénégal est là il y a beaucoup de, de trains qui n'arrivent pas à l'heure comment faire pour ces trains là arrivent à l'heure pour le bonheur des Sénégalais chaque fois dama koy wax parce que tey jii yaa y a beaucoup d'abris provisoires comment faire pour l'éradiquer il y de cancer cancer yoo xam ne ñu ngi ci hôpital yi di comment faire pour que cancer nekk lu gratuit faj bi les démotalisés lan la ñuy def ba dialyse nekk lu gratuit Sénégal li nga les enfants en situation d'handicap seen école yi dafa manqué ay trois écoles la xaw nan la ñuy def ba mu am ci partout dans le Sénégal nga xamante ni ñoom danañ am possibilité dem jàngi pour mën a servir seen réew. Mm. ces ces ces thématiques là ces ces ces moom la opposition bi war indi ñëw teg ci table yi ñu discuter ci xool nan lañuy def ba ñoŋal euh, li nga xamante ni mooy mooy euh, defar li nga xamante ni mooy mooy suñu Sénégal gi. d'accord monsieur Galissa yow itam ban euh, bilaa ngay def ci sept jours de campagne. ci fi ñu toll tey muy juróom-ñaareelu fan ci euh, campagne bi mu door ak tey euh, ma ànd ak sunu euh, tête de liste départementale Abass